di nuyu waa Tivaouane yëpp waa Sénégal yëpp tey jii ñun ñoo improvisé daanaka laay wax ce point de presse bi nga xam ni annoncé woon nañ ko gannaaw bi ñu génnee ci élection yi wante dafa am xew-xew bu tax ñu bëggoon a leeral ba tax ñu ni nañ ko woote def ko benn yoon tënk ko ci ñaari point Euh, bi ci jiitu mooy li jëm ci gazon synthétique bi nga xamante nii dama ko may waatu yaawoon biig am lu ci xew am ay interprétation yu ci am yoo xam ne dina jaadu ñu leeralal askan bi lan moo xew dëgg-dëgg ak lan yan mesure lañ ci jël deuxième point bi dinañ profiter exprimer wu ci résultat élection municipale yi nga xamante ni ci lañu génn dinaa ko def ci olof tënk ko une bonne fois ci français comme ça suñ ci paree bu fekkee am na ay question ñu mën ci ñu mën ci jàll bu dee ci wàllu point bu njëkk bi muy wàllu gazon synthétique bi defe naa ni yàggul dara gannaaw bi ñu xamee lan mooy bëgg-bëggu waa Tiwaawan nekkoon tam suñu bëgg-bëgg ba ci jamono bi élection yi waaj a ñëw dama ne woon bu ma laajoon ban point d'insatisfaction nga am damay wax li ñu defarul stade municipal de Tivaouane gazon synthétique ndaxte dox nañ ci bind nañ ci ministre des sports plusieurs fois président de la république sax wax nañ ko ko ci pour que Tivaouane yaakaaroon nañ ni euh, mérité na am stade bu mucc ayib boo xamante nii day am lu ñuy wax pelouse synthétique ndax loolu moo xew ci ci jamono. bi yàlla defee ba suñu mandat di waaj a jeex si juróom-ñaari at parce que yàgg nañ ñu même defal ay proposition si ay cotation yoo xam maa ko doon demandé mais lañ ñu doon laaj da doon jéggi dayo jéggi dayo boo xam ni duma ci mën a engagé wu personnellement du ma ci mën a engagé mairie dañ daan bindaat rek état ni am nañ ko ñu proposel ni mën na ko defal client mais après état bi des moom fay ko loolu mujjul antu ñu dem ba jëmmi jamono sama benn xame parce que nag boo defee ñaar fukki at ci administration wala lu ko dina bari ay xame ñuy waxtaan ci suñu mandat li ñu jot def Tiwaawan ak li nga xamante ni jotoon nañ ko fa bëgg a def te defuñu ko fa ci biir loolu gason synthétique bi génn moom ci boppam mu xamal ma ni mën na ma jàppale parce que loolu moom da koy def defal ñu gazon synthétique ci prix boo xamante ne nii boo xaajee lañ ñu daan proposé xëy na ñett ba ñeenti yoon ci lay tool mu nekk jàppaleem ci man mu nekk sama jàppale ci Tivaouane pour ñu defal waa Tivaouane pelouse synthétique et comme ni ma leen ko waxee woon ànd naa ak moom ba fii ñu visiter terrain bi mu laaj 7500 mètres carrés de gazon synthétique. ñu war a defaraat également grille de protection bi def ci également ay projecteurs solaires ba ci terrain multifonctionnel bi mënuma lii mën naa la ko defaral booleel la ko ci pour un rien ñu accepter ba mën leen woon balaa même élection yi mën nañ ko inaugurer effectivement liggéey bi xarañ na ci xarañ boo xam ni lim ci lim koy liggéey du yàgg su koppar teewee ma jël la jox ko pour mu tàmbali donc gazon bi moom ala kulial jënd nañ ko ba pare jox ko pour mu tàmbali am ñu yéene Tivaouane nga xamante ni dinañ ko defar ba mu pare dërëmu municipalité du ci dugg ndax nag ñu yéene Tivaouane bari nañ te am nañu relation ñoo xam ne mën nañ ñu jàppale gannaaw man li ma ci def ñooñit jàppale ñu ci ba gazon bi pare ba ñu demee ba war a jàpp datu démarrage bi le directeur des infrastructures du ministère des sports tudd Cheikh Tidiane Sarr yàlla dogal sax mu dëkk Tivaouane nag far woo ma ni ma monsieur le maire dañu gis ci presse bi que ni doon nga réceptionné donc ñuy fàttali ni réceptionné nañ 7500 mètres carrés de gazon synthétique ñu waroon a indi granulat bi indi engins yi indi lu muy àndal pour niveler terrain bi defar ko anam bu mucc ayib si lu gaaw bi ma directeur des infrastructures ne dama gis ni da nga réceptionné gazon synthétique ci Tivaouane wax ne da koy posé man ko waaw parce que loolu dañ ko xaar lu yàgg amul donc léegi ut naa ay pexe mun ma mais ministère des sports moom lancé na marché ba pare avance na même ki ko war a defaral pour que mu ñëw posé gazon synthétique defar grille de protection ak piste d' athlétisme je sais pas def naa si la bokk. ma ne ko léegi nu ñuy def mun ma mais nañu waxtaan ñu xool léegi ban solution lañ ci am man ko li ma gis comme ministère pare na pour def loolu man pare naa pour def la même chose. nañu waxtaan ñu xool bu fekkente ni nii ñun mën nañoo lal gazon bi def li ñu waroon def ministère la mu waroon investir mu def ko ci mur de clôture bi daaneel ko complètement defalaat gradé yi mu defar ko wala ilaa moom mu def li mu waroon def man ma changé investissement bi def ko loolu mu ni ma waaw bi ñu mujjee jotante mu ni ma ñi ngi Cameroun ci coupe d'Afrique bi suñu ñibbisee loolu ñu waxtaane ko xool ban solution lañ ci am entrepreneur bi nekkul sax Sénégal actuellement woo ma ni ma monsieur le maire man bi ñu conclure rek dama mobiliser ay équipe yoo xamante ni pare nañ pour def liggéey bi benn ñaareel bi gazon bi fiñ ko stocké conditions yi idéaluñu sécurité bi wóorul mais les conditions techniques ne sont pas optimales dama bëggoon nekkuma Sénégal mais yabal ñu ko récupérer am fuñ ma ko yóbbul foo xam mi gazon bi du yàqu du am benn jafe-jafe donc ñun loolu gisuñu ci woon benn xam nga loo jënd ba pare mënatoo ko récupérer loolu moo waral démb mu yónnee fi doon ko jël pour yóbbu ko fa ko doon stocké pour mu nekk dans des conditions optimales mais may wax waa Tivaouane ni leen gazon bi may naa ko Tivaouane pelouse bi may naa ko Tivaouane askanu Tivaouane ndaxte man su ma nekkuloon maire sax lépp lu ma mën ci def ko ci biir Tivaouane dama koy def kon ma leen di leeralal ni biig ba ma déggee ni gardien bi il était en transe parce que voilà nekkoon na ci ay situation yoo xamante ni nii mi ngi doon réagir ay jeunes ñëw di réagir automatiquement laa ko woo ni ko abandonnel le retrait parce que dinañ yaakaar ni la ñuy wax ak li am bokkul parce que ko expliqué wul ni yow yaa jël initiative bi en tant que entrepreneur pour récupérer ko mettre ko en sécurité et dans des conditions optimales ak li xew ñu demoon élection perte dañ yaakaar ni dañ koy nangu nit ñi profité wax loolu gazon bi ma nga ca stade ba fa mu ne woon man ko léegi pour faire simple man dama amoon sama yéene mooy jënd pelouse ut ay partenaires ñu lal ko defar grille de protection bi mun ma man ko maintenant qu'est-ce qu'on va faire on fait immédiatement jaratul ñuy xaar ministère nañ ko daal di lal defar ko niveler terrain bi indi granulat bi disposition yi nga amoon ñu exécuter ko defar grille de protection bi def ci les projecteurs solaires maintenant la nouvelle équipe municipale bu ñëwee mu négocier ak le ministère des sports pour que li mu fi naroon a def comme lam ñu yéene woon ay koppar la au lieu ñu def ko gazon ak grille de protection ñu def ko la ma waxoon daaneel mur bi carrément defaraat gradin yi Tivaouane am stade bu bees tàq donc lii rek mooy li xew leneen xewul donc je conclus si point boobu ah pour wax leen ni gazon bi pelouse bi jënd gazon bi defar ko defar grille de protection yi def ci ay projecteurs yéene ba woon démb ak bërki démb moom mooy bi tey maanaam jox nañ ordre entrepreneur bi mu ñëw la ñu waroon a def mu def ko nam ko waroon a defee ñu may ko waa Tiwaawan ndax loolu mooy li nga xam ni moom laa def sama tarbiya wax naa leen ko ci xadara maam Cheikh Alioune Malick mooy lu ma am defal ko Tiwaawan loolu je pense que ni leer na gazon synthétique bi ma nga fa waxtaan naa ak entrepreneur bi dootuñu xaar ministère des sports la nouvelle équipe municipale bu ñu ñëwee waxtaan ak ñoom lañ fi naroon a def ñu wëlbati ko defar stade bi mu nekk stade bu bees tàq en attendant Tivaouane di am beneen stade bu bees te suñ stade bii nag stade boo xamante ni la bu ñu ko defaree mën na sax accueillir des compétitions internationales. voilà li ma ci bëggoon a wax si premier point bi relativement vraiment ak gazon synthétique bi jërë ngeen jëf. voilà mesdames et messieurs bonjour je vous ai convié à ce point de presse que j'avais déjà. annoncé le 23 janvier dernier, le jour de la proclamation des résultats, résultats provisoires. Et j'avais décidé, parce que moi j'ai une déformation professionnelle, je veux toujours faire les choses de manière ordonnée et de manière officielle. Donc j'ai voulu attendre au moins, au moins, la proclamation des résultats provisoire par la commission départementale pour pouvoir nous prononcer sur des chiffres réels et ne pas faire de spéculation. Entre-temps, il s'est passé hier, 25 janvier 2022, au niveau du stade municipal, et des informations fallacieuses ont été distillées à travers les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Pour rappel, j'avais fait don donc à la population tuawanoise d'une pelouse synthétique constituée de 7500 mètres carrés de gazon synthétique, mais également de la reprise des grilles de protection assorties de projecteurs solaires. La réception a été faite de manière officielle au vu et aussi de tout le monde et aujourd'hui encore, les 7500 mètres carrés de gazon synthétique sont encore stockés au niveau du stade municipal. Mais l'entrepreneur nous a fait part qu'à la suite de l'accord qu'on avait trouvé, il avait mobilisé des équipes pour démarrer immédiatement la pose du gazon synthétique. Et que par ailleurs, les conditions de stockage n'étaient pas optimales, les conditions de stockage et de sécurité. Et qu'il se proposait Parce que c'est du gazon que nous avons déjà acquis, qu'on ne peut pas retourner, dont je n'ai pas besoin ni chez moi ni ailleurs. Je l'ai acheté pour les Tuawana, pour le stade Elage Mustafa Nyang de Tuawan. Mais lui-même, en tant que technicien, a estimé que les conditions sécuritaires et de stockage n'étaient pas optimales et qu'il souhaitait récupérer les rouleaux pour les mettre en sécurité, mais également en conditions optimale de conservation. C'est lui le technicien, c'est lui qui sait pourquoi il nous a parlé de ça. Dès lors, on lui a donné l'autorisation de le faire pour sécuriser le gazon, au bénéfice des Tiawanois. Mais hier, les populations qui n'avaient pas compris cela, et certains qui ont voulu, en tout cas, nous salir, ont vite fait de dire que le maire qui a perdu les élections est en train de récupérer le gazon synthétique qu'il avait fait don aux Tuaonois. Et je vous dis qu'il n'en est rien. D'ailleurs, j'en ai profité hier pour discuter avec l'entrepreneur parce qu'il faut rappeler à la suite de la réception des 7500 m2 de gazon synthétique, j'ai été interpellé par le directeur des infrastructures du ministère des Sports, en l'occurrence M. Cheikh Diansar, qui m'a fait comprendre qu'ils avaient eu écho dans la presse que j'avais acquis une pelouse synthétique pour le stade municipal de Tuaon, alors qu'au niveau du ministère des Sports, un marché pour la même cause a été attribué. L'avance de démarrage même donnée à l'entrepreneur qui devait démarrer en décembre. On avait décidé ensemble de discuter et de voir quelle conduite tenir par rapport à ces deux investissements de même nature. Moi, je leur, je leur avais proposé de voir qui, Dante, le ministère des Sports et moi-même, allait faire la pelouse, la grille de protection avec les projecteurs solaires, mais également le terrain multifonctionnel, et que l'autre investissement soit réorienté vers la reprise intégrale du mur de clôture et l'amélioration des gradins suivant les montants disponibles. Mais entre il y a eu le démarrage de la canne et ils se sont retrouvés actuellement au Cameroun. Nous étions en attente de leur retour au Sénégal pour mener cette discussion-là et prendre une décision. Mais tout compte fait, moi, j'avais pris la décision de m'investir personnellement et avec l'appui de certains amis, certains partenaires, pour doter Tuawan d'une pelouse synthétique, un vieux rêve des Tuawanois Comme ce fut d'ailleurs un vieux rêve des Tiawana pour ce qui est des projecteurs que nous avons eu à poser. J'ai été très clair que nous avons eu à poser dès notre prise de, fonction. Alors, compte tenu de ce fait, des populations ont pensé que nous étions en train de retirer le gazon parce que nous avions perdu les, les élections. Alors hier, j'ai discuté avec l'entrepreneur qui n'est même pas au, au, Sénégal, mais ses équipes sont sur place, pour lui dire de moderniser le stade en tant que Tuaonois. Et je, le, je lui ai donné l'ordre de démarrer immédiatement la pose de la pelouse et la reprise donc des grilles de protection avec les, pro avec les projecteurs solaires. Donc le débat est clos sur cette question. Le don est déjà fait au Tuaonois et la pelouse sera posée. Je pense que, je ne l'ai pas dit en Wolof, au-delà même de la pelouse synthétique, on a montré aussi des vidéos avec des ouvriers qui étaient en train de transporter manuellement du ciment pour également raconter des balivernes, dire que le maire est en train de retirer le ciment qu'il avait mis au niveau du, centre, du poste de santé de Médine parce qu'il a perdu les élections. Kon waxuma ko ci olof mais avant même pelouse bi am na des esprits malsains yu wane ay vidéo ni maire day maternité Médine ba mu doon defar lam fa yóbbu woon ci ciment wane ay ouvrier ñu yanu ay saaku ciment di ko génne maire mi koy génne di ko nangu wat defe naa nag xel mënul gën a ñaaw loolu may wax waa Tivaouane man Tivaouane laa juddoo fi laa màggee dama ni maire wala naag ñàkk nekk maire lu ma war a def ci Tivaouane dinaa ko fi def wante it man dama doon républicain doon un citoyen lépp loo xam ni war naa ko def Tivaouane contrairement à ce que faisaient mes bi ma nekkee maire lu war a jaar ci maire bi dama koy jaarale ci maire bi lu ma war a def directement dinaa ko def directement li ma intéressé rek mooy na Tivaouane jëm kanam kon loolu dina éclipsé wu nag du ma fu maire war a toog nekkatuma bu boobaa nekkatuma maire du ma toog place maire bi maire bi moo fay toog lu maire war a def duma ñëw di ko def place maire dina ko lu ma gisit mu jëm Tiwaawan nga xam ne lu baax la pour maire yi ña ko fi war a def dinaa leen orienté waxuma naa leen indi de naa leen orienté ñu dem ci maire pour def ko fi te yàlla nag may nañu ñu am ay relation yàlla may nañu ñu yàgg ci administration du ñu weddi suñu bopp ñun ñoo waxoon ne intérêt Tiwaawan moo ñu tax a jóg pas suñu intérêt bopp donc lépp lu yëngal intérêt Tivaouane dinañ nekk ci biir lu ñu mën a def pour intérêt Tivaouane tamit dinañ ko def kon loolu defe naa ni le débat et clos sur la problématique donc de la pelouse synthétique du euh, SAR El Hadji Moustapha Niang les 7500 mètres carrés de gazon sont encore là-bas nous avons demandé à l'entrepreneur de suspendre le retrait pour des raisons techniques et sécuritaires et de démarrer immédiatement le chantier. Et je rassure les Tuaonois que tout est prêt. Il n'y aura pas d'impayé, il n'y aura pas de retard. Nous avons pris toutes les dispositions pour que le travail se passe dans les délais impartis et certainement ce sera inauguré, en tout cas mise à la disposition de la nouvelle équipe municipale parce que le stade municipal est un patrimoine donc de la mairie. C'est ça que je voulais dire sur cette question-là en ce qui concerne la pelouse synthétique. Je vous remercie de votre aimable attention. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point C'est clair. Très bien. Maintenant, je vais passer ma jàll maintenant ci ñaareelu point bi may ñaan rek ñu nekk ci gannaaw bu ñu mënee déglu. voilà may donc dem ci beneen point bi nga xamante ni joxoon naa rendez-vous askan bi ni leen dinaa tenir benn point de presse comme ni ma ko waxee man nag dama am déformation professionnel yàlla dafa def ma am formation administrateur civil donc dama ne woon bala may def point de presse bi damay xaar ba ñu am chiffre au moins les chiffres provisoires pour sooy wax nga mën a xam fan ngay teg sa tànk pour wax wax loo xamante ni dina méngook lii doon réalité bi deme waaye dinañu réajuster suñu communication pour wax li ñu bëgg a wax incha allahu taala ci wàllu résultat yi fi may tàmbalee mooy wax alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin bi ma yàlla defee may nit alhamdulilahi rabil alamin bi ma yàlla defee may jullit alhamdulilahi rabil alamin bi ma yàlla defee may doomu Tiwaawan alhamdulilahi rabil alamin bi ma yàlla defee ma jokk ci xadara maam Cheikh Seydi Hadj Malick alhamdulilahi rabil alamin bi ma yàlla boolee ma bokk ci askanu lébu bien que ni ab lébu laa boo xam ni lébu kayorien la waaye surtout alhamdulilahi rabil alamin bi ma yàlla mayee ñaari wayjur yu tudd Abdallah Mbeng ak Ayda Siise meññi ma maam ay maam yu tudd Babacar Mbeng tafsir Abdou Cissé ma sante yàlla loolu bu baax wax ni nit ku ne sa dund yàlla moo la koy tracel man su ma xoolee sama àdduna ni mu tëddee damay xam ni yàlla lu mu namm ci yow rek moom mooy am ala bi yàlla defee maam baccalauréat série C ñu orienté ba math physique à l'université yàlla dani woon du ma def math physique parce que sama professeur ne woon na ma da ngay nekk prof math man réorienté wu dem defi sciences économiques bi may def concours bu mel ne ENAM soo defee sciences éco inspecteur du trésor wala impôt et domaine ngay xalaat ba ma duggee ENAM yàlla réorienté ma ma dem defi nekk administrateur civil option collectivité territoriale bi may def option collectivité territoriale mooy waru ma a dem commandement territorial ba ma génnee yàlla orienté waat ma dugalaat ma commandement territorial mën naa koy tegalee noonu si sama dund bis bu ne yàlla moo yor sa destin moo lay orienté ba ma defee commandement territorial it kon yàlla dafa mel ni orienté wu ma woon ci wàllu politique wante un an avant Ablaye Wade di daanu lañ ma def directeur de cabinet ministre de la famille de Mbodj ko xam-xam ni ministre bu politique la ma nekk ci environnement politique ba président de la république Macky Sall ñëw du ci ñëwaat ma dugg ci wàllu politique bi en résumé ba ma ciy dugg dama duggoon rek pour jàppale ko kon nag su ma nangoo ni 2014 dama ñëwoon di jàppale président de la république Macky Sall ndax wóolu bu ma ko wóolu ci ni mën na jëmale kan Sénégal kanam ci xam bu ma ko xam avant sama xel nekkul woon ci mairie yàlla indi maire bi ma accepté ko doxal ko juróom-ñaari su ma gëmee yàlla bu dee li may woote ci man dëgg la su ma toogee juróom-ñaari at di utaat maire bi pour des raisons yoo xamante ni maa ko xam yàlla ndi ma du ma yow keneen la dama koy accepté nangu ko bu baax dama koy nangu à cœur ouvert gis ngeen affaire bi mun naa ko waat nit ci ñii ma jàkkaar loolu la gën a diis que si man parce que nag too amee jaar-jaar épreuve yu ne nga jaar mais surtout nga nekk jullit am ngëm-ngëm am na loo xam ne mënul dis yow àdduna lu ñëw rek leçon lay doon ci yow kon ñi ngi nangu que ni ñun dagaan nañ baatu askanu Tiwaawan ngir intérêt Tiwaawan nangu nañ ni waa Tiwaawan def nañu beneen choix nit président Demba Diop si moom lañ tànn pour def ko mairie Tiwaawan yàlla na ko jig yàlla na ko yàlla jàppale ci mission bi yàlla ko yàlla defal ndam ci lii mu dugg def ay réalisation yu mag c'est notre seul parce que ñu ne Tivaouane gi képp koo xamante ni jóg nga pour defar ko dañ lay ñaanal nga am ci nga am ci ndam bien que ni je réitère la ma doon wax ci campagne bi mooy suñu bopp lañ ci gënoon a wóolu waaye yàlla nag population yi nee nañ ma du yow lañ ci gën a wóolu diw lañ ci gën a wóolu accepté nañ ko ak xol bu laab di am yéene yu rafet jëme ko ci ñëpp di ko féliciter di ko ñaanal yàlla mais di remercier ñi ànd ak man depuis ma nekk ci wàllu politique di ma jàppale muy le bureau municipal ñaar ñi ngi fiy toog le premier adjoint le deuxième adjoint le secrétaire municipal mais également l'équipe municipale conseil municipal bi nga xamante ni nii def nañu suñu conseil juróom-ñaari at mësuñoo ñàkk korom mësuñoo voté contre loo xam ne indi naa ko parce que lépp intérêt Tivaouane la woon ma sant leen gërëm leen ci loolu gërëm askanu Tivaouane bu baax ci cofeel bi nga xamante ni nii wane nañ ko jëme ko ci ñun je pense que ku gis suñu pré campagne ak suñu campagne ni mu demee xam ni ay la yéen résultat yi mbetteel la ci ñëpp mbetteel la ci ñëpp dinañ ko analyser xool lan moo doxul xam nañ ci yu bari yoo xam ni duñu mel ni ku ñàkk ñànki dañ koy waxtaane xam nañ ni on a travaillé du côté de la massification on a on a travaillé du côté des militants et du militantisme, sans travailler du côté de l'électorat. C'est différent. tey salle bi mën na fees ñi fi nekk fekk fukki nit ñoo am carte d'électeur bu dee liggéeyuloo ci côté électorat après lay doon jafe-jafe mais dañ cee demoon ak yaakaar ak yéene àdduna nag lu ñëw day nekk leçon pour ëllëg. donc mu remercier ñépp ñi nga xam ni yaakaaroon nañ continuer dañu yaakaar ba tey ci Tivaouane remercier leen wax nit ni wax naa ko suñu bitim bu mujj gannaaw defar Tivaouane mu jëm kanam suñu engagement politique bi nga xam ni mi ngi jóge ci président Macky Sall bougéwul d'un le projet communautaire politique bi ma doon wax tey lay gën a taxaw on va le faire de manière efficace sans bruit sans pour autant faire écran ou entrave liggéeyu équipe yi nga xamante nii ñoom lañ fi teg lii di suñu parti muy APR lii di suñu coalition muy Benno Bokk Yaakaar ba ñu paree ci résultat yi lañ commencé di réfléchir ak di liggéey te naka la ñuy def pour renforcer ko saa dama bëgg mu leer ci bopp ci bopp ñëpp causes yi dinañ ko analyser am na luñ ci xam y a des facteurs ci côté bu ne des facteurs qui sont intramuros yoo xam ni c'est extramuros yoo xamante ni c'est divin yooyu yëpp xam nañ ko dinañ ko analyser mais daal mu gudd mu gàtt mu gudd mu gàtt mooy nangu nañu ndogalu yàlla te incha allah mais incha allahu taala parallèlement la ñu taxoon a jóg muy Tivaouane jëm kanam li ñu taxoon a jóg muy renforcer le président Macky Sall jàppale ko jusqu'au bu loolu tey lañ ci gën a taxaw loolu bëgg naa mu leer si bopp ñëpp maa ngi it invité képp koo xamante ni mbumbaay bi moo la indi woon ci li ñu doon def mbumbaay bi jeex na. juróom-ñaari at dañ ko liggéey kenn dégguñu dañu jàpp ni y a un temps pour le travail un temps pour la politique bi politique jotee am lu mu laaj def nañ ko yëngal nañu ba ñëpp xam ni yëngal nañu waxuma rek Tivaouane Sénégal réussir nañ fi loo xam ni ñu bari mënuñu ko ça c'est clair la journée du 8 janvier ak la mobilisation bi ñu teeru woon président Thiès ak mobilisation bi ñu defoon stade ñetti événement ya la yoo xam ni nit dina politique cinquante ans du ko mën a réussir kon militants yi ñu ngi leen di remercier ci taxawaay boobu di wax ni ku mbumbaay bi indi woon wala ku jël maire bi indi woon yàlla def na li muy def ku nag jàppale ñu ci suñu projet pour fu ñu toll ñuy defal Tivaouane liñ ko war a defal pour fu ñu toll di renforcé le camp du président de la république Macky pour fu ñu toll di renforcer suñu camp ci biir Tivaouane ñi ngi lay woo ci liggéey boobu nga xamante nii incha allahu taala duñu xaar à partir de samedi prochain am na daje bu ñuy def waxtaane ko xool fu ñu jëm fu ñu jëm te duñu yàqal kenn liggéeyam au contraire liggéey bi buñ ci mënee jàpp dañ ciy jàpp lii daal mooy li nga xamante ni ci wàllu élection yi mooy li ma ci bëggoon a bëggoon a wax di wax ni rek li ñu boole muy tuyaawan moo ëpp doole fuuf loo xamante ni war nañoo mën a xàjjale kon na jëpp jàpp ni Diagne si Mbengue tey jii fa mu tolloon démb ak bërki démb ci jëmale tuyaawan kanam ci posture meeram fa la toll tey ci posture doomu Tiwaawanam ci kilifteef politique bu président de la république makisal ci biir Tiwaawan ci kilifteefu xadara maam Cheikh Seydi Hadji Malick si kilifteefu Serigne Babacar Sy Mansour le khalife général des Tijanes ak njabootam lii bëgg naa mu leer ci bopp ñëpp ku ma ci bëgg a fekk si maa ngi la ciy woo ku leneen indi woon ku leneen indi woon nag loolu jeex na muy folklore bi jeex na muy également mairie xëccoo mairie bi jeex na yàlla teg na kim mu fiy tag di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala mais li may fàttee xëy na sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp ci élection yi wante nag dafa am da ngeen gis ci presse bi s'il vous très souvent ñu naan leader sànkam duma nañ ko ci bureau am duma nañ ko ci centre yàlla dafa def nag man ma juddoo ndut mu nekk sama base politique naturelle balaa ñu koy SME ci biir Tivaouane nga xam ne ñëpp jàmm laa ak ñoom mais maa ngi sant yàlla nag bi nga xamee ni ci centre de vote bi may vote bi may voté muy ndut am naa fa 420 voix ki topp ci man. ki topp ci man du sax ki gañe waaye ki topp ci man nekk waa wàllu am deux cent quatre-vingts voix donc rawe nañ leen lu mu néew néew cent quarante voix donc yàlla dimbali nuñu bokkuñu ci leader bu ñuy wax ni gagné nañ ko ci bureau de vote wala gañe nañ ko ci centre de vote maa ngi jaajëfal waa Tivaouane yëpp waaye nag maa ngi jaajëfal waa ndut ndax sigil nañu ma ndax su leneen amoon dina dina ñaaw et ça vraiment à le à le encourager tous les autres également lu mel ni le centre de Kër Birima nga xam ne aussi gagné nañ ko le centre de balla ja bi nga xamante ni nii aussi gagné nañ ko di jaajëfal ñi ci des di leen envoyé di leen encouragé di wax ni li xew xewalu leen ñëpp la xewal mais day tax rek ñu gën a defaraat suñu suñu taxawaay di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah voilà mesdames et messieurs on va passer donc au deuxième point j'avais annoncé dès le 23 janvier dernier que je donnais rendez-vous à la presse pour nous exprimer sur euh, les résultats des élections municipales principalement. Alors moi, j'ai une déformation professionnelle, une formation d'administrateur civil qui m'avait poussé à attendre tout au moins la proclamation des résultats provisoires pour pouvoir nous prononcer sur du concret. Entre-temps, il y a eu l'affaire de la pelouse synthétique et donc j'ai pris la décision d'anticiper pour ne pas appeler deux fois la presse pour nous exprimer sur euh, ces résultats. Et je commence par euh, rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant Allah, qui a fait de nous un humain, qui a fait de nous un Tuaonois, qui de nous un musulman, qui a fait de nous également, euh, comme je l'ai dit tantôt, un fils de Tuawan, mais surtout qui a fait de nous également un talibé de Mam Cheikh Seydi Haji Malik mais qui a fait de nous, qui a décidé de nous faire naître entre deux personnes que sont El Haji Abdallah Mbeng et Aïda Sissé, que Dieu leur prête une très très très longue vie. Ils nous lient une vie accompagnée d'une très bonne santé et je souhaite la même chose pour tous nos parents qui sont encore vivants. Vous savez, dans la vie, il y ce qu'on appelle le, le, destin. Et moi, si je regarde sur le rétroviseur, sans revenir sur les détails, je sais que Dieu a toujours décidé à ma place, malgré le fait que j'avais toujours des choix à faire. Ça a démarré après mon baccalauréat de la série C, que j'ai, au lieu de faire maths physique, j'ai fait sciences économiques. À l'ENA, au lieu de faire trésor, ou impôt et domaine ou douane, j'ai fait administration générale, collectivité locale. Et quand je suis sorti de l'ENA, au lieu de euh, d'évoluer dans les collectivités locales, j'ai fait le commandement territorial. Et qui dit commandement territorial dit un champ en dehors de la politique. Mais un malicieux destin a voulu que, un an avant la chute du président Ouad, que je devienne directeur de cabinet du ministre de la Famille et de me mouvoir dans une sphère politique avec le ministre d'État Aydembout qui est une personnalité éminemment politique. Et c'est dans ces entrefaits-là que lors d'une discussion avec le président de la République et le ministre de l'Intérieur Ndiaye, que j'ai décidé, bref, j'en ai parlé plusieurs fois, d'entrer en politique pour soutenir le président de la République, Macky Sall, sans pour autant avoir pour ambition d'être maire de Tuaon. Et si j'accepte qu'en 2014, je n'avais pas pour ambition d'être maire, mais que le président de la République, Macky Sall, avec le Cheikh Serigne Abdoulaye Selamine en avait décidé autrement et que j'ai eu à accepter cette situation, si je suis euh, conforme à mes principes, j'accepte également avec grand cœur que les Tuawanois ont décidé de choisir un maire autre que James Mbeng pour les cinq prochaines années à venir. Donc je félicite, je l'ai déjà fait, je félicite donc le président Demba Diopsi et lui souhaiter une excellente chance pour cette mission. Même si je réitère ce que j'avais toujours dit durant la campagne électorale, chacun pouvait avoir cette, des ambitions pour Tuawan, mais moi j'avais plus confiance à ma personne parce que je me connais mieux que je connais les autres. Tout compte fait, ce qui est fait est fait. Et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier les gens qui m'ont accompagné depuis mon entrée en politique, mes camarades de la paire, mais également l'équipe municipale avec qui j'ai eu à travailler pendant sept ans. Sur cette table, nous avons les deux adjoints, M. Goromay, deuxième adjoint, M. Massama Diagne, le premier adjoint au maire, Paptaledje sur la table qui était président de la commission santé, mais également remercier le conseil municipal qui m'a accompagné durant sept ans. Tuawan n'a jamais eu de problème de quorum pour tenir ses réunions régulièrement sur les sept ans. Les conseillers municipaux n'ont jamais voté contre des projets que je leur ai, je leur ai proposés. Ce qui signifie qu'ils nous ont accompagnés jusqu'au bout. Et aujourd'hui, si on a réussi quelque chose, c'est parce que des hommes et des femmes nous ont accompagnés. Je n'en ai pas parlé en Wolof, c'est vrai. Mais nous quittons la municipalité, contrairement à ce qu'on avait trouvé sur place, avec un budget d'environ 400 millions, nous laissons la municipalité avec un budget d'un milliard de francs CFA. Et il ne s'agit pas d'un budget fantaisiste, il s'agit d'un budget sincère, qui a été évalué de manière sincère, avec des fonds déjà disponible au niveau de la du la pairie du trésor nous partons également en laissant à la nouvelle équipe municipale j'espère que vous êtes toujours en direct Mbengue Diop yaa ngi direct ba tey <laughs> voilà j'ai vu que vous l'avez arrêté alors que ce que je dis là c'est important <laughs> mais je voudrais que vous laissiez le direct <laughs> euh, je, je, <laughs> je voudrais, je voudrais, que la presse soit vraiment impartiale. Alors, je voudrais dire que nous laissons Tuawan avec des projets dont les deux parcours sportifs, les deux parcours sportifs dont les marchés ont été ouverts et vont être attribués très bientôt. Nous laissons à Tuawan le projet de rénovation du terrain multifonctionnel 6 au quartier HLM. Nous laissons à Tiawan le projet du Global Green Growth Institute GGGI avec le projet des bouts de vidange pour plus de près d'un milliard. Nous laissons à Tiawan le projet également Prodemir de traitement des déchets dangereux avec la réalisation de l'unité de destruction des déchets dangereux installée au centre Massamba Sall. Vous savez, si j'avais une posture politicienne, j'allais déjà inaugurer l'infirmerie de la Khadara. Mais je laisse à la nouvelle équipe municipale une infirmerie entièrement construite et des équipements d'une valeur de 10 millions que nous avons pu obtenir hors budget municipal stocké au niveau de la mairie de, de Tuawan. Donc nous partons. Nous laissons à la nouvelle équipe municipale le démarrage du chantier du poste de santé de, du, du lotissement Khalifa Abakarsi vers Parba. Mais également le démarrage bientôt du nouveau poste de santé vers Goumoun. Et tant d'autres projets qui sont en cours. C'est différent de notre arrivée à la tête de la municipalité où nous n'avions eu comme document de passation que quelques pages de papier sans stylo, ni chaise, ni table. Je laisse également à la nouvelle équipe une mairie, une très belle mairie, un joyau. Et d'ailleurs, je vais reprendre la peinture avant que la nouvelle équipe ne prenne, ne prenne, ne prenne et une mairie très bien équipée. Je leur laisse, je leur laisse, je leur laisse. Mais nous allons, nous sommes dans la continuité du service public. Je leur laisse une administration municipale bien organisée. Je leur laisse un état civil informatisé également. Je leur laisse des hommes, et ça j'aurai l'occasion de revenir lors de la euh, prise de fonction et de la passation de service. Je leur laisse également trois lotissements autorisés. Le lotissement de Yadjin, le lotissement de Goumoun et seul le lotissement de Khalifa Abakarsi a connu un début d'exécution avec des attributions surtout pour les propriétaires de champs, mais tout le reste sera continué par la nouvelle équipe municipale. Nous, sou nous souhaitons, mais je leur laisse également un parc industriel avec six usines qui tapent à nos portes et je vais tout mettre en œuvre pour que ces usines qui ne connaissent pas la nouvelle équipe, qui me connaissent moi, je vais tout mettre en œuvre pour ne pas les décourager, pour qu'ils viennent s'installer effectivement à Tuawan au grand bénéfice des Tuawanois parce qu'il y a 5000 emplois qui sont, en œuvre. Je les laisse pour le marché de Kermatar un hangar construit à hauteur de plus de 34 millions de francs, de francs CFA. Je leur reste un ça qu'il faut que, ces municipale poursuive. Voilà le Tuawan que le Tuawan qui avait l'objet de nos, de nos Et nous espérons que tout ce travail abattu pendant sept ans sera conservé, préservé, est mis à la disposition des populations tuawanoises. Je vous remercie de votre waaw waaw waaw dañ may wax ni li ma mujjee wax nee nañ li ma mujjee wax waxuma ko ci ci waxuma ko ci olof damay wax ni rek damay wax ni rek administration continuité la dama ne équipe municipale bu bees bii dinañ leen bàyyeeg Tiwaawoon bu wuuteeg Tiwaawan bi ñu fi fekkoon ñun en 2014 wax naa ko waxati ko ba ñu paree suñ passation de service ay feuilles la ñu yore def ko nii ñu ne lii mooy seen leg lii lañ lii mooy seen ndono ci Tiwaawan bic bu ngeen bindee amu leen ko util pexe monsieur le util pexe uti nañ pexe nag ba équipe municipale bii dinañ leen bàyyeel benn mairie bu rafet boo xamante ni nii tabax nañ ko ci tabax bu gaaw d'ailleurs dama jël décision balaa ñuy ñëw su ko jot gi maye ma woo ay pent ñu peinturaat ko beesalaat ko ba mu bees tàq ma soog ko bàyyee ak ñoom dinaa leen bàyyeel administration bu jaar yoon dinaa leen bàyyeel ay ndaw yu mën seen liggéey bëgg seen liggéey dinaa leen bàyyeel benn état civil boo xam ne dañ ko informatiser dinaa leen bàyyeel organisation boo xam ni su ñu ñëwee jafe-jafe ya ma amoon man pour jël temps pour créer administration ñoom du ñu am jafe-jafe boobu dinaa leen bàyyeel ay chantier yu bari ndax dinaa leen bàyyeel ñaari parcours sportif yoo xam ni marché yi lancé nañ ko bu ubbi nañ pli benn bi ñu war ko def li jógee Auchan jëm kër Soxna Aida beneen bi ñu war ko def li jóge sapeur pompier jëm ci ci biir jëm côté Mbulayda waaye dinaa leen bàyyeel tamit ci HLM benn terrain omnisport boo xam ne war nañ ko defar koppar yemb na ba pare. dinaa leen fi bàyyeel benn chantier boo xam ni defe naa def nañ installation de chantier bi mu doon benn poste de santé day am maternité am logement am également poste de santé bi boo xam ni mi ngi am ca Parba. waaye dinaa leen bàyyeel tamit beneen poste de santé boo xam ne ñi ngi ko war a def ci côté nga xam ne beneen poste de santé dina ko fekk si si côté Kër Baakar ak feneen ak feneen ak kër ak zone Kër Birima dinaa leen bàyyeel tamit benn infirmerie de la Xadara boo xamante ni nii bu doon dama am esprit politicien au sens péjoratif du terme inauguré naa ko ndax tabax nañ ko ba mu pare infirmeri de la Xadara ba mairie amul ay koppar pour pour équiper ko dem naa ut ay partenaires ñu jox ma 10 millions équipement yoo xam ne ma ngi ca mairie ba dinañ ko fa fekk pour mën ko yóbbu inaugurer li ñuy waxee infirmeri de la de la Xadara waaye it dinaa leen fi bàyyeel benn centre socioculturel des jeunes mooy les anciens locaux de la mairie nga xam ne pare na à 80 pour cent dinaa leen ko fi bàyyeel. dinaa leen fi bàyyeel projet yu jafe woon am benn bi mooy projet bi ñuy wax. Global Green Growth Institute ay nga xam ne tey jii les bouts de vidange yi nekk ci centre bële ñi ngi koy def këriñ di ko def engrais dinaa leen fi bàyyil tamit benn espace d'expérimentation fële ci maison familiale projet bi daanaka mat na un milliard. dinaa leen fi bàyyil benn projet bu ñuy wax Prodemit gestion des déchets dangereux et des déchets médi biomédicaux nga xam ni bañ koy xëccoo mairie Sénégal yëpp ko doon xëccoo. ba ñu demee ba ci njob ba ci cat li ñaar ñoo ko gañe muy Tivaouane ak Ziguinchor dinaa leen bàyyeel benn unité de de des déchets biomédicaux bi jar lu ëpp téeméeri million ci centre de santé Massamba Sall waaye it dinaa leen bàyyeel beneen projet boo xamante nii mooy la gestion euh, des déchets électrique et électroniques dinañ leen ko fi bàyyeel dinañ leen fi bàyyeel Tivaouane boo xamante nii dafay nekk en chantier dañ leen fi bàyyeel Tivaouane boo xam ni ku gis réseau d'assainissement bi xam ne mi ngi mi ngi dem dinañ leen fi dinañ leen fi bàyyeel ci biir Tivaouane benn parc industriel defe naa ni campagne nañ ko parce que ñun dañu planifier développement Tivaouane ba mu yegg si juróom benn usines yooyu nag bi ci am solo ëpp ci ñoom ñi ngi doon am xalaat ndax yaa fi continuer di nekk maire ndax ñun yow la ñu xam waaye dinaa waxtaan ak ñoom dalal seen xel ni leen Tivaouane moo leen soxla du woon pour man pour ndawi Tiwaawan la woon ndax war ngeen a indi 3000 emplois dinaa fexe yi yeneen usines yëpp ñu installé wu li ma diggoon ndaw yi muy 5000 emplois ñu am ko waaye dinaa leen fi bàyyil maire bi nga xam ne ba ñuy ñëw jafe-jafe yi tolloon na ci budget boo xam ni si 400 millions la woon tey jii budget moom ku mu neex nga ne 10 milliards te bañ ko teg fenn ku mu neex nga ne 30 milliards bañ ko teg fenn waaye ñun def nañ budget bu sincère boo xam ne tey jii egg na ci daanaka un milliard te koppar ya ko war a liggéey incha allah du ñu am jafe-jafe am ko ndax lu toll ci cinq cent quarante six millions yoo xamante ni daanaka yemb na mi ngi mi ngi trésor kon ñu xam ni dinañ fi fekk benn Tivaouane boo xam dafa nekk en chantier le centre intégré de valorisation des déchets chaîne de tri bi rek moom moo des équipement yëpp ña nga fa. defe naa ne sax ko am commencé nañ ko utiliser ndax des fois bakk yu mag yu mag yooyu ngeen gis ñuy teg ko ci mbedd mi foofu lañ koy jëlee. kon dinaa leen bàyyeel benn Tivaouane bu nekk en chantier dinaa leen bàyyeel benn Tivaouane bu nga xam ni waa forum civil bi ñu ñëwee def audit Tivaouane dañu classé deuxième ci biir Sénégal ci yorin boo xamante ni yorin bu bu sell la. dinaa leen bàyyeel tamit gannaaw parc industriel bi ñetti lotissement lotissement yàjjin dañ daan faral di wax ni Macky Sall am na jam ñaajoon Tivaouane am na yàjjinam yàjjin boobu dinañ fa bàyyi projet lycée bu bees dinañ fi bàyyi projet centre de formation professionnelle et technique bu bees dinañ fa bàyyi projet espace numérique ouvert bu bees mais dinañ fa bàyyi lu toll ci 4000 parcelles yoo xamante ni nii war nañ ko war nañ ko jox les jeunes de Tivaouane waaye dinañ fa bàyyi tamit benn projet pour tabax fa lu toll ci 500 logements boobu nag directeur général SNHLM moo ko fay tabax incha allahu taala pour waa Tivaouane. dinañ fi bàyyi lotissement Goumoun ñu war a waxtaan mettre ko am œuvre dinañ fi bàyyi lotissement Khalifa Ababacar si nga xam ni mooy seul lotissement boo xam ni commencé woon nañ ko defar commencé nañ même attribution yi partiellement boobu bu ñëwee dinañ yeggale bu ñu ñëwee tamit. dañ fi fekk lotissement tooro bi nga xamante nii ku ne da nga yoroon sa tool di ko defee na nam la neexee ñu dajale leen defar ko ba nga xamante nii tey ji lotissement bu jaar yoon la tali yi am na fu ñuy jaar soo soxlaa santé sante xam nga foo koy teg terrain de sport am nga foo koy teg dinañ leen bàyyi lit ci ñi la maison du citoyen may invité jeunes yëpp ñu dem visiter ji ko maison du citoyen bi lu am solo la ci biir Tivaouane Sénégal service ci biir ci biir Sénégal biir mairie ba dinañ leen fa bàyyil benn mutuelle de santé ba nga xamante ni Tivaouanois yi ci adhéré bari nañu di dem di faju ci hôpitaux yi te duñu te ñuy fay du lu ñuy lu ñuy lu ñuy fay di bari. éleveurs yi dinañ leen fi bàyyil benn foiraay boo xamante ni nii def na 16 hectares te amul ci Afrique de de l'Ouest donc pour conclure pour ma tëj ci point boobu dinaa wax ni. Tiwaawoon bi ñuy bàyyal équipe municipale bu bees bi ute na ak Tiwaawoon bi ñu fi fekkoon ci 2014 si ndimbalu yàlla. dinañ fi bàyyi Tiwaawoon bu am ay réalisation dañ leen fi bàyyi Tiwaawoon bu nekk en chantier yàlla nañu yàlla dimbali ak gestion bu transparente yàlla nañu yàlla dimbali ba lépp loo xamante ni projet la bu ñu niseroon war ko def ba ci terrain bi nga xam ne bala muy yàgg gazon bi synthétique bi dinañ ko lal mun loolu yëpp yàlla may ñu si ndimbalam. ñu yeggale ko au grand bénéfice des populations ñun amuñu soxoru ki ñu remplacer yàlla bu mu réussir déedéet si suñu xol la ñuy ñaane Tivaouane yàlla na jëm kanam waaye nag ci décentralisation la ñu nekk suñu participation ci Tivaouane ndax décentralisation dañuy wax ni ñeenti jën la ñeenti pilier da ngay am territoire am des autorités élues am autonomie ci sa budget waaye am na ñeenteelu ponk boo xam noonu foofu lay fas yéene positionné wu muy la participation citoyenne donc lu ma war a def ci Tivaouane pour jëmale Tivaouane kanam dinaa ko def bu dee nag loo xam ne cëru mairie la dinañ ko jaarale ci mairie ku ma xamit nga jublu Tivaouane wala la nga yor baax ci Tivaouane su dee cëru mairie la dinaa la orienté yóbbu la ci waa équipe municipale bu bees bi fi ne pour mu defaru ñun leen rek a ñu intéressé muy dëkk Mame Maodo du ma wax bi ñu yàlla natoo bi ñu yàlla xéewalale nga xam ni lii ma fi def yëpp jàppe naa ko tarbiya waaye jël naa ko def ko addiya ci Cheikh Seydi Hadji Malick yàlla na yàlla dogal ñuy gis muy jëm kanam rek waaye yàlla nañu yàlla may ñuy continuer di participer ci wàllu boobu di sant ñëpp di gërëm ñëpp daxwaahum fiha subhanaka allahumma wa daxiyatuhum fiha wa axiru daxwaahum an alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullah